maa leen di fay di leen siyaar di kontaan ci seen taxawaay waaw parce que lii yombul ñu koy def ngeen dégg ko rek jóg nañ loolu woyof rek ku mën ak taalibe maa ngi kontaan ci yéen bu baax a baax. ñu safar du ñu ndax rek gis nañ dañu da nga koy nga daal di ñëw daal di def safar lan la ñu mën a wax ci bés. waaw waa waaw lii moom ñun dañ koy def ak fierté chaque année chaque année nag. parce que ci lañ juddu ci lañ ñu yar d'accord ay musiciens lañu ay artistes lañu waaye nag suñ Tuubaa moo ne suñu deret bëgg ko it moo nekk suñu deret ak suñu ndox ñu ndoxu yaram waaw te loolu tam li ñuy bëgg ak lu àdduna mën a mel àdduna du wëlbatiku mbaa mu yàgg mbaa mu neex ba ñu fàtte ni ci sëriñ Tuubaa ci murid lañ judd ñun te safar mooy weer wi ñuy profité rattrapé waat suñu waaw moo tax lii moom dañ koy def toujours ak yàqanti ko ak mbégte ak liñ ci def rek xepp benn famille ay xale yu am jom bëgg seen bopp euh, nangoo liggéey bëgg fàllu benn te yàlla rek tax créer seen ay groupe WhatsApp di cotiser seen alal Euh, di nuyu président bi nga xam ne mooy Mass Koki di ko siyaa di kontaan ci moom lu ma kontaan ci moom rek dama koy xeeb waaw am na ku ñuy wax euh, Tourlaay borom Espagne ak euh, ki nga xam ne mooy Max Lalion jiite Benz Family Diaspora sama famille samay xarit Ramdan ñoom musiciens yi bu ma limee juum ba ci ñi nga xamante ni ay xaritu Wally ñoom tumaani yónni ma xaalis bu bari ñoom Omaro ñëpp gars yi ñëpp a jàpp ci bés waaye ñoom ñëpp rek mooy loolu mooy safar moom dafa nekk loo xam ne nekkul ku ne rek loo ci def pour yow la waaw maanaam yow mun nga ko woote waaye man bu ma ci defee sama bopp laa ko def noonu la demee moo tax gars yi it loolu la nand rek moo tax ñëpp a ci jàpp macha allah may gërëm ñëpp. lan mooy secret dañuy gis ne bu kenn xewlee ñëpp rek dañu ci daal di jàpp ñu gis familiarité pluralité bi nga xam ne yéen parce que Ramadan du bu dox daje Ramadan du groupe musique rek Ramadan famille la d'abord c'est une famille te ki nga xamante ni moo ko créé doon monument muy Thione Ballago Seck ñu koy ñaanalaale ci bés bi alxuraan yi fi wàccee tey ci suba. fasaale nañ ko ci fasaale ci sama baay Massamba Ndiaye ak képp ku fa nekk ku fa fekk rek ñaan suñu borom boo leen jéggal yërëm leen xar leen àjjana a kawe ci barke weeru waaw. waaw loolu deret la c'est mon cousin ñu bokk deret c'est mon ami ñu nekk ay xarit man ak moom xarit mu bëgg ma teg ma fu mu tegul kenn waaw li ñu boole dafa bari mu wëlbati ko nekkaat sama patron. waaw ah, donc Waly moom bu doon ci man bu ñu koy wax fi la ñuy faral. tey mu daal di def lu rëy ci sa bisu safar bi nga woote mu daal di ci teral cousin am sa frère Lil Pro daal di koy bette ak surprise bu neex a neex mooy dix ans aux États-Unis waaw parce que loolu moom li tax mu rëy du jëmmi visa bi rek mais nekkee ndaw. ba léegi nii dafa daan am faral am problème jafe-jafe affaire kayit Wally tànn na ko bëgg ko yóbbu ay yoon muy am ay waaw loolu la daan demee quoi moo tax tey bi mu amee visa bi Wally ci njëkk kontaan daf ko fekk bi yëpp kontaan macha allah parce que tam yàggoon na bëgg bu ñuy tukki bu groupe bi di tukki ñuy ak moom te daawul ànd waaw te mu nekkoon yeneen i bagage rek ndax loo gis rek suñu borom xam na app bu app jotee lay am tant que jotul tam du am. waaw di ñaan it bis bi mu jotee bis bi mu ko déclaré visa bi mu tombé bisu safar gi ah waaw loolu mbégte la rek ak xéwal ndax daaw la yóbbu passeport am ci sëñ Mountakha mu ñaanal ko waaw ci mois d'août donc bu ñëwaatee ci mois d'août ren visa am génn alhamdulilah waaw li bari critique bari ba ci moom ak yow parfois yu ci bari rek dafay bari ci seen côté ba ñu leen di yàqal yàq nañ ko sa oto benn yoon du ñaar naka ngay dundee critique yooyu ak sa. waaw waaw parce que yoon bi ñu jël moom. moo noonu la bindoo des fois nag mën nañoo dem ba yéeg wala ñu dem ba am lu ñu metti parce que ay nit kese lañ mais ñun dara bettuñu ci xam nañ ni lii ñuy dem nii euh, loolu la laaj yoon bi loolu la laaj te am nay haut am na ay ba am na waaye am na ay safaan léeg-léeg euh, nit mën na la xool rek nii nii nii neexoo ko te loolu tam bu la daree da nga war a sant suñu borom. non waa gars yi loolu la ñuy wax waaye ci muy sa biir rek sa biir rek nit koo gis muy def rek. parce que faa day nekk seen biir am ku la gis jege nga waali mu jéem mu dugg foofu yàq. ci biir Ramdaan non mënul nekk ci biir Ramdaan moom. mënul nekk ci biir Ramdaan moom parce que Ramdaan mooy li ma la wax famille waaw noonu nag moom mooy li ma la wax ñëpp koy am ku ko amul war ngaa ndax foog naa nit mënta doxal lu baax wala mu jub wala mu dëggu. wala nu mu mënti mel qualité yu mu mënti am ba du ko am faaw am noonu ndax loolu suñu borom daa wane misaal baax rek mooy tere am noonu wala jubal rek mooy tere am noonu Seydina Mohamed doo am noonu sallallahu alayhi wa sallam waaw te fa mu dëkk dafa amoon noonu ay noon yu ko daan nañ ko sànni nañ ko xeer saaga nañ ko lu ne dégg na ko te dimbali nit ñee ko taxoon a jóg waaw kon nit ñi nga xam ne ñu xeebu lañu ñu dara bu gisee ay. noonu ñuy fexe nag yi di demee noonu waaw dañoo war a sant des fois nag ñun suñu xol mën naa jeex comme man ba ma dalee sama xol jeexoon na waaw ba ma xaw a salit mais après yeetaan naa sama bopp ay retaan jàpp ma ndax suñ tubaab mi nga xam ne moom moo woote safar gi woote màggal bi du ko nit deful te defu leen dara a ah, ñi ko doon sonal nit defu leen dara yàlla xam na ko waaw ah, donc kon. Ramdan moo moo kodewul maanaam ku bëgg rek da ñëw intégré ba mi naa ci la waxee ni Ramdan dafa am Faramaren am est-ce que mën nga ñu distinguer ñaari groupe yooyu. waaw non Ramdan du question dafa kodewul Ramdan ki ko jiite nii moo moo yaatu. Waly Balago Seck moom dafa yaatu. Waly kenn mënul nekk ak moom siis. su nay son ndax ku mu gis boole la ci boppam. te foog naa loolu xanaa moo gën de mel noonu moo gën. moo waaw loolu lépp ci mooy li ma la rek loolu mooy li ma la wax rek Ramadane famille la kër la tam kër goo xamante ne tam këru euh, borom xol bu yaatu la. muy waale balaa ba say yàlla na yàlla defal rek tey képp ku ci xaj aussi amul benn problème noonu la demee kontaan naa kontaan naa bu baax a baax.